La la la la. La la la la. maa ngi koy yóbbante ñu jóge Touba ci dëkk bu sell ndax Mouhamed Lamine dañu wax ne wax wax leen ci seen réew dara Mouhamed jël garabu guy ni guy dafay màndargaal lu mag ci Afrique te moom Mouhamed dafa am lu am doole lu ko takkee ak guy maanaam Mouhamed. dafa am relation ak démbam comme moom euh, Mouhamed euh, du fàtte li nga xam ne mooy démbam ndax bari na bu génn rek fàtte yow a kan kon ministre de la culture ñu ngi la ci yóbbante parce que dégg naa ca naaree ku tudd Léopold Sédar Senghor parce que culture baa tax kon ministre de la culture bëgg nañu mu recevoir lii te am ci taxawaayam beneen bi Touba ña fa jóge mu ne ñu laaj ko wax ñi ci sama gi mu ne day tànn Mawlana Cheikhul Khadim gis ngeen photo bi Mouhamed lii la wax dafa ne dama leen di présenter Mawlana Cheikhul Khadim sénégalais bi Cheikh Bamba mi nga xam ne moom li ñuy wax bañ maanaam nangu loo warta nangu moo ci exemple bi ñu gën a am ak nidaal ak maandute jàmmoo dogu dëgër dafa dund lu yàgg ci loxo yi noonu waaye ba mu ñëwee la mu njëkk def dafa annoncé officiellement ni képp ku mas a ñaawal jëm ci ma rek jéggal naa kon su ngeen demee Touba ñu ngi leen di yóbbante ca xilaafa ga ñu mobilisé wu ñun ñëpp ñëw ñu dalal fa Mouhamed Lamine Diop dalal bu gën a doy waar bi beneen bi ci des dama koy yóbbante Cheikh Omar Seck chargé des relations extérieures bu Ittihad ndax yow loxol ndey jooru Pape Malick nga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 waxal ñu ngi lay dégg ci micro bi allo.